ni ñu doyloo tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg tëgg na wér daañu ne riir waaye luñ ko ñaan doyul waaw lu mu fi gën a yàgg mu gën a neex neex na waaye lu mu gën a yàgg jamono mu gën a neex yàlla na fi yàgg tëgg na wér mbokku taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp jiital sama sang bi moom Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou sama sag bi sama ndam li sama mucc gi sama tawféex gi sama xéewal gi sama lu ma xamtu woon sëriñ Béthio sama sang bi yàlla fi yàgg te gën a wér maa ngi koy santaat bu wér maa ngi nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te gën a wér di ñaanal njabootu sëriñ Saliou gi leen siyaar di nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi di nuyu mbooleem këru diine yi bàyyiwuma kenn te di leen seereeloog sama cant ci sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou maa ngi nuyu bu baax suñu waajur yi fi toog muy soxna Mboose di soxna Aïcha ñoom nee nañ nañ leen waxaaleel seeni kàddu di nuyu bu baax jël universel soxna Adja Saliou Thioune moom sëñ Béthio ko bëggee bu baax tey sant bu baax Serigne Béthio ci ànd gi di nuyu bu baax universel soxna Batoor Saliou Thioune Touba Kër Serigne Touba di sant bu baax sëriñ Béthio ci ànd gi di nuyu baax suñu mag yi suñu ndey yi nga xam ni Serigne Béthio daf ñoo boole ñu ànd ak man ci liggéey bi ñoom it waaw di seere ñoom it seen njàmbaar ak seen passif ci liggéey bi ñu sëriñ bi boole ñoo ngi sant bu baax tey day dama luum waaye lu ma luum luum du ma tee sama sang bi maa ngi koy ñaanal te di ko ñaan sàkku yàgg boobu jamono boole ko wér ci barke sëriñ Saliou Béthio day tey sëñ Béthio waaw tey sëñ Béthio moom day ñëpp ko war a sant waaye dama cee raw maa ci raw bu ne nag ak ndox la waaye bëgg naa ndax fi mu ma jaarale li mu ma defal ni mu ma def fa ma jëlee fii mu ma indi ak fa mu ma yóbbu aka aka tumuraanke aka jombe waaye jëmmam jee jombe tey saa su ne bu ma neexee xandaalu waaye tey bu ma neexee xandaalu ndax li tax mooy dama ami mbokk ñu dëkkee di ñëw nag waaye tey dañoo ñëwee noo xam ni musu ñoo ñëwee nii te ñoom ñëpp ñu teew fi nag dama bokk ak ñoom deret ñu xam foofee ñu bokkoon nekk ñu xam tey jii fii ma Serigne Béthio yóbbu waaye tey tey bu dul woon ak Serigne Béthio kon loxo dem gémmiñ te du ànd ak tibb wallaay tey bu ma taxawee fii di ndamu ak a sago damay sant sëriñ bi jubluwuma ki nag ndamu ndax booy ndamu day fekk nga defal sa bopp waaye man mayuma sa bopp man sëñ Béthio ma defar te moo ma defar waaw soxna Dia nee na Serigne Saliou nee na diggante cant akub tiitar dañoo nuroo waaye nag ak cant moom daa féete kaw lépp te ku dul moom Serigne Saliou mënu ko ràññale te mooy sëñ Béthio waaye de li may dëkkoo di saxoo di ñaan Serigne Béthio mooy man ne bëgguma xamati te bëgguma beew xam naa kii ma defal te mooy sëñ Béthio moo ma defal te moo ma defal man doomu séeréer ak pël laa juddoo doomu séeréer ak pël foofee laa juddoo diggante boobee laa juddoo waaye Sëriñ Tuubaa daf ma faa jaarale jaar jaar la ci man waaye man mooy sama borom te mooy sëñ Béthio sëñ Béthio waa àdduna ñi may seetaan mbokku taalibe yi sama mbokki deret yi maa ngi seere loolu ñëpp sant gi ma sant sëriñ Béthio di ko ñaan ak taalibe bu ànd ak ngor gu ma ko toppee moom sëñ Béthio barki sëriñ Saliou maa koy sant bu wér luum naa de billaay luum naa ndax gii sag gii ndam doon sëriñ Béthio jombe na ndax sëriñ Béthioy sëriñ Saliou wallaay soxna laa nuru naa ko lool nuru naa ko lool waaye la ca biir ku dul sëriñ Béthio mi ko def xamu ko nuru naa ko lool nag ndax nag maa ngi pudaru maa ngi tagalu maa ngi solu waaw maa ngi takku waaye nag lay sëñ Béthio lay soxna Aida loolu sëriñ Béthio moo tax maa ngi jiital samay kàddu di ko tuubal lool ci lu ma xam ak lu ma xamul te maa ngi koy sant maa ngi koy sant cant boo xamante ni lott naa ci lool waaye damaa fas yéene rek gore sama diggante moom tey ñaan ndimbalam ak yërmandeem ngor gu ànd ak taalibe topp ko ni ma ko war a toppee te liggéeyal ko defee ko ni mu ko bëggee te bañ koo defee ni ma ko bëggee maa koy sant bu wér. ngir teral mbooloo mi jublu ca sant Serigne Saliou waaye cant gi mooy dañuy santale Serigne ba ci Serigne ndax moom mooy borom cant gi ngir waaj gan yaa ngi dikk ndax li ñuy dikk dikk noppeeguñu ñoo ngi ñëw dellu si waat teeru mbooloom teeru gan yi fas yéene kenn bañ a mer cant gi bëgg tey bëgg la waaw bég la bég bég tey bégle la kon dañoo bëgg ñëpp bég waaw barki Serigne Saliou kon bu guddee it lépp Serigne Saliou waaw lépp mama lépp Serigne lépp Serigne Saliou waaw waaw lépp Serigne Saliou lépp Serigne Saliou ah, ah waaw lépp Serigne Saliou ah waaw lépp Serigne Saliou lépp Serigne Saliou ah waaw lépp moom lépp moom ah. walaay bu dul woon ak moom tey am na fi yàgg te gën a wér kon mbokk taalibe yi ñu waaj waajal bâche bi.